seen taxawaay dafa rafet tey parce que tey lenn rek moo ñu ñor mooy na xale yi jàng te bu kenn feebar Médina dafa bokk ci commune yi nga xam ne feebar daf leen a laal bu baax wante ñun teel nañoo taxaw même président avant muy jël ay mesures di tëj marché yooyu Médina defoon na ko ba pare daj woon na li ko wër yëpp ak ko ñu xat yi boobu ba kenn jëlagul mesure ñoo ko fi njëkkee ñoo njëkk pompe pompé tamit ci ndimbal service d'hygiène njëkk a pompé sunu marché ak li ko wër ñoo njëkk woo imaam yeeg bilaal yi jox leen ay moyens leen fexe leen commencé waxtaan ak nit ñi woowaat ASC yi jox leen matériel bu doy ay produit ak enveloppe leen dem leen ci quartier yi ngeen fexe nit ñi di raxas seen loxo ñu respecté mesures yi tey ñu def kook école yi kon Médina Médina mosul xaar mais ngeen jàpp ni du doomi Médina kese ne Médina ni ko Ousmane waxee sànq ñi fi jaar di fi liggéey ak am fi activité ak ñi fi jaar di dem plateau day bari mbooloo mu ëpp 500000 personnes la ñooñu tamit dañuy indaale seen jàngoro rombale ko Médina wala ñu taxawé ko Médina yoy yëpp bokku ci ni stratégie mais li ñu soxal tey mooy na école ubé jàmm ak salam ben xale bañ fé fébar te Médina am ci résultat yu baax. fé ci mairie bi euh mairie ba maire maire jox nañu fa monsieur le maire jox nañu fa matériel bu doy doy doy doy bo xamné xale dañ ko wone utiliser dans toutes les écoles de la Médina muy ay masque yu doy sabu yu doy lave-mains yu doy mais aussi gel ak alcoolique et tout yu doy bañ fa jógee té ñu ngi fi ci école Alassane Ndiaye Alou

waaw jërëjëf euh, pompe bi xam nga lu solo la maire moo ñu jox ay moyens am solo ñu ànd ko inspecteur bi ñuy gërëm ci taxawaay pour ñëw pompe école yi daara yi mosquée ak église yi loolu dafa nekk mesure bu am solo parce que mesure barrière baax na mais il faut des moyens barrières pour nga mën a appliquer mesure barrière si les moyens barrières ne sont pas là les mesures barrières peuvent donc l'État a mis beaucoup de moyens barrières le maire de Médina a mis des moyens barrières loolu moo tax ñu ñëw fii taxaw di xeex biñ ñëwee nag pompé nañu classe yi pompé salle surface yëpp dañ ko sécuriser mais dañu jàll ci école yeneen école jàll ci daara yi daara ci mosque xam nga virus bi moom amul garab mais mën nañ ko rey. Euh, ñu am maire bi tudd Bamba Fall boo xamante ne comprendre na euh, li nga xamante ne moom mooy euh, liggéeyu mbooloo. donc ubbeeku euh, na tous les citoyens de la Medina woo na doomu Medina yep ñi nek bir Medina et nek ci diaspora bi ne leen liggéey bi nga xamantene ne da ngeen moo ko dama koy defandoo ak yéen kenn ku ci nek sa xalaat soxla naa ko kenn ku ci nek sa xam-xam ak sa moyen aussi soxlo nako donc mu nek lo xamantene du guléet